Moustapha wax nga ko présidentielle 2019 bokk na ci lu ñu nar a waxtaanee nga ne mhm. leçon d'un scrutin inédit. waa xam nga day baax. su ñu mhm. defee élection bu mel nii ba génn ci. Mhm. ñu jàng ci. Euh, laaj bi ñuy njëkk laaj. te xam naa ne ñiy seetaan également da ngeen koy laaj. Euh, depuis bi juge Demba Kandji joxe résultat yi. démb léegi mooy dañ naan est-ce que Macky Sall gagné. ma ne waaw waaw gagné na kay moo gagné élection yi. te gagné na ko au premier tour. Euh, beneen boo xam ne mën nañ ko seetlu ci élection yi. Ah. muy organisation bu ñu xoolee ni ñu organiser élection yi. Ah. waxuma li am avant. Ah. waxuma li am après. mais dama ne jour scrutin bi. bu ñu xoolee organisation bi dans l' ensemble mën nañu euh, féliciter. ministère de l' bi nga xam ne Aly Ngouille Ndiaye moo ko ah, jiite ah. mais également la direction générale des élections ah. parce que pour une fois def nañ élection boo xam ne déggoo ko en tout cas lu bari ñu naan la bulletin yu Cheikh Yane Gomis nekkul fëleeg encre bi baaxul toj nañ bureau ya fële en tout cas j'ai l'impression que ni uh-huh. li xewoon 2017 servir nañ de de de leçon bu organisation élection yi uh-huh. je crois que bariwul trop loo xam ne mën nañ leen cee ŋàññi te loolu lu am solo la uh-huh. euh, du sax performance parce que une démocratie normale organiser élection lu normal la war a doon mais comme ñun dañoo nekk réew moo xam ne Euh, yenn saa yi ñu mhm. jàdd ba nga xam ne jàdd nañ mhm. mais comme élection bi organisation bi baax na nañ wax ne baax na maintenant euh, ñu dikk ci résultat yi nga xam ne moom moo mhm. génne ci vote bi résultat yi li mu joxe mooy président Macky Sall moo gagné au premier tour avec cinquante huit virgule euh, vingt sept pour cent des des des kii là des votes mu toll ci war a toll ci deux millions cinq cent cinquante quatre mille six cent cinq voix loolu la soo ko comparé ak li Macky Sall mujjoon am ci élection présidentielle muy mm-hmm. muy élection euh, deuxième tour élection présidentielle yi mu daanee Abdoulaye Wade mm-hmm. Macky Sall mi ngi woon ci un million neuf cent neuf mille deux cent quarante quatre voix donc pratiquement moom Macky Sall yokk na ci score boobu lu war a mat six cent mille ah. euh, six cent mille voix sinon plus li ko waral euh, mën nañ wax ne da bokk loo xam ne président de la République mm-hmm. sortant la forcément am na benn bassin électoral boo xam ne moom moom lay yóbbaale. Mhm. bu dee dem ci élection. Mhm. mais xool dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo voté pendant cette élection là da ngay jàpp ne waxoon naa ko fii. que mhm. ni fichier électoral bu 2000 euh, bi Macky Sall ñëwee au pouvoir en 2012. fichier boobu boo ko doon xool dañ naan la 54 wala boog autour de 54 pour cent électeurs sénégalais yi ñu ngi nekkoon ci diggante Ndakaaru Thiès ak Diourbel. bi ñu defee refonte fichier bi muy fichier bi ñuy voté loolu dafa wàññeeku ba léegi seul 48 pour cent. Mhm. su ma juumul en tout cas autour de 48 pour cent. ñoo nekk ci diggante Ndakaaru Thiès ak Diourbel. Mhm. li muy tekki mooy man nga perte Thiès. perte Diourbel nekk minorité à Dakar ba pare gagné élection yi. lu ko waral moo di ne élection yi euh, sénégalais yi vote ñiy voté. Mhm. dañoo yokkee ci beneen côté. côté bi ñu yokkee mooy surtout le monde rural nit ñi ci àll bi donc électeurs yi dañ koo yokk yokk boo xam ne jaaxal na ñu baree baree bari euh, da ngay gis dëkk boo xam ne ceex Thierno Daaf joxe na ci benn exemple barki démb dëkk boo xam ne en 2017 di 2000 électeurs lañu woon en 2019 c'est-à-dire deux ans après ñu dem ay 10 mille électeurs mmh. ñu dem ay dix mille électeurs te noonu yokk yooyu moom ngay gis ci zone yu mel ne Fouta nga xam ne électeurs yi dañuy yokk yokk boo xam ne jaaxal nañu bëri lan moo ko expliqué nag man awma réponse bi te du ma aventuré wu naan lii moo expliqué yokk boobu ci kenn rek la profité muy le candidat sortant parce que président de la république moom Macky Sall moo la gën a xam ne doon na ko jafe moom sax wax na ko quelque part que ni avant élection yi defe naa ci campagne bi bi ñuy campagne doon na wax ne Euh, Ndakaaru Touba c'est presque fait Ndakaaru moo ci des affaire yi donc moom xamoon nañ quelque part mhm. que ni pour mu gañee à Dakar à Touba à Thiès luy jafale ci moom mhm. donc énergie bi nga xam ne yëpp moom la amoon daf ko def dans le monde rural mhm. euh, Senghor noonu la daan gagné élection Abdou Diouf noonu la daan gagné élection te le monde rural là dafa mel ne dañoo delloo Macky Sall loo xam ne moom la leen jox parce que boo xoolee ay pro dafa am ay programme yu Macky Sall di dawal yu mel ne PUDC. Uh-huh. ak euh, le programme PUMA. programme la yoo xam ne ñi mu gën a concerné dëgg mooy ñi nekk ci monde rural bi donc da ngay gis ay dëkk yoo xam ne amuñu woon ndox ñu def fa forage nga gis ay dëkk yoo xam ne amuñu woon tali ñu def fa ab rang-rang nga gis ay dëkk yoo xam ne amuñu woon hôpital ñu def amuñu woon fajukaay ñu def fa dispensaire. Uh-huh. jënd jënd nu ñu koy waxee ambulance jox leen yooyu. Uh-huh. souvent da nga gis ci wàllu fajiri d'ailleurs ñu koy teg. ñu jox leen donc. ces populations là dëkk ci zone yooyu ñoom bu ñu dee voté uh-huh. seen yoon nekkul ci préoccupation yi nga xam ne ñun ñi nekk Ndakaaru ak ci dëkk taaxi la am uh-huh. parce que ñun souvent dañ naan euh, Macky Sall dafa échoué ci bonne gouvernance uh-huh. Macky Sall dafa échoué ci justice Macky Sall dafa échoué ci lii ci laa ci laa ci éducation nangam ak nangam mais dans ces zones là ak ñi ne ci mo ci ci centre urbain yi préoccupation yi bokkul ñoom ñu dee réagir dem di voté ji dañ naan rek fii de amul woon ndox forage bi ci Macky Sall la fi ñëwee uh-huh. fii de amuñu woon poste de santé dispensaire bi ci Macky Sall la fi ñëwee ñun kat amuñu woon euh, ambulance uh-huh. ambulance bi ci Macky Sall la fi ñëwee donc uh-huh. considération yi dafay jouer trop ci élection yi ba pare bokk ci souvent ci zone yooyu bu ñuy voté dañuy voté ndax diw par exemple Cheikh Tidiane Gomis mii moo fi nekk suñu amee problème moo ñuy taxaw donc moom comme fii la bokk moom la ñuy voté donc loolu pour man dafa jouer trop ci élection yi taxul nag may expliquer ba léegi lan moo mm. tax euh, ngay dégg ay quatre-vingt pour cent ah. quatre-vingt-dix pour cent ci benn centre de vote mm-hmm. yooyu je crois que ñi nga xam ne ñoo bokk ci opposition bi xëy na di jàng élection yi dinañ ma mm-hmm. ak ñeneen sax société civile ak yooyu mm-hmm. dina jàng pour comprendre lan moo tax dans certaines zones nga gis fa des corps soviétiques yoo xam ne doo xam lan moo koy expliquer yenn saa yi nga gis tax ñu ne la euh, bureau bi ñi fi woote ñoo ëpp ñi fi ñi fi bindu mm-hmm. mais yooyu yëpp c'est des considérations yoo xam ne xëy na ñi ko war a jàngal dinañ ko jàngal mm-hmm. mais ba léegi bu ñu xoolee résultat yooyu Fabel mm-hmm. dafa lay jox beneen lecture avant may pause pour que Cheikh jël ñu doog a doon ci leneen li uh-huh. beneen lecture mooy booy analyser sénégalais ni ñuy voté am na benn sénégalais uh-huh. bu bind benn livre tuddee ko comment votent les sénégalais fan yëpp maa ngi koy wër mënu ma ko jot uh-huh. mi ngi tudd Cheikh Ahmed Bamba Diagne xëy na su ma dee seetaan moom dina ma jéem woo euh, benn livre la ci bind mais ci élection bi bu ñu xoolee sénégalais yi ni ñu voté da ngay gis ne euh, dafa am sénégalais yoo xam ne ñoo féete xëy na Kaolack Fatick Tamba Fouta ñoom ñi ci ëpp ci ñoom l'écrasante majorité Macky Sall lañ voté nga gis Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk diggante Bawol mhm. ak Kayoor ba Thiès ak Diourbel mhm. ñooñu majoritairement Idrissa Seck lañ voté mhm. nga gis Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk dans le sud majoritairement Ousmane sonk lañ voté soo ñëwee dakaar le vote est parce que Macky Sall moo raw mais boo dajalee li mu am ak li opposition bi am li opposition bi am moo ko ëppale donc il est encore minoritaire à Dakar loolu nag pour man dafa war a indi ay lecture ci ni Sénégalais di voté am na ñoo xam ne dañu choisir le chemin le plus court mooy ku nekk da nga voté sa mbokk waa Fouta parce que Macky Sall seen mbokk la votel nañ ko waa Sud parce que Sonko seen mbokk la votel nañ ko waa Diourbel parce que Idrissa Seck ne léegi Mouride la votel nañ ko man ma ne cette lecture là dafa simpliste trop Uh-huh. il faut que ñu dem plus loin de ça. Uh-huh. xam nga soo jëlee le vote de Ziguinchor soo ko jàppee rek ci ne parce que son Sonko seen mbokk la moom lañ voteel man yaakaar naa ne am na njuumte xam nga lu tax uh-huh. en 2007 2007 je pense. ou 2012 Robert Sagna nekkoon na candidat Robert Sagna a été maire de Ziguinchor au moins pendant vingt ans. bu ñu dee wax lii di ancrage ci benn région moo ko ëppale Sonko à Ziguinchor parce que Sonko xëy na euh, kii na foofu mais sonk waa cees la. Mm-hmm. avant muy nekk waa Ziguinchor. en tout cas ay mbokkam ne nga fa. Mm-hmm. donc su fekkee ne waa Ziguinchor wote nañ pour Sonko nga ne rek parce que seen mbokk la je crois que juum tamit ci am. Mm-hmm. sinon kon en 2007 ou 2012 ils auraient fait la même chose pour Robert Sagna mi nga xam ne moo ëpp Sonko ancrage à Ziguinchor mais lan moo tax kon. ñoom ñëpp ñu wala boog ñëpp ñoom wala Sonko. Mhm. dafa am ay paramètres yu ko expliquer y a déjà le fait que Sonko déjà au niveau national dinaa ci ñëwaat. Mhm. am na ay scores yu baax un peu partout te Ziguinchor ne peut pas abs euh, euh, euh, ne peut pas être l'exception dans cette tendance général beneen bi mooy dafa am des faits concordants yoo xam ne xëy na man dama yaakaar ne waa Ziguinchor dañu mhm. faj maire à travers Sonko xam nga lu tax parce que dañu jub élection yi Sonko dem fa def fa benn meeting benn responsable APR bu mag taxaw ne ñu topp Sonko ñëpp Ziguinchor ay rebelle lañ. Mhm. je crois que ça. Mhm. quelque part ça a joué. ça ci vote bi. waaw. Mhm. yaakaar naa ko bokk. beneen bi soo jëlee à Touba. Touba lu musul am lu fa Idriss Seck musul am la la fa am mooy ñu bëree bare bëree ko voteel bu sax dafa gañe rek mais dafa gañe d'une manière écrasante loolu il faut ñu xool lan moo ko waral c'est que déjà am na des ay ay njuumte yu bëree bëri yoo xam ne gëm naa ne am na dans la campagne de Benno Bokk Yaakaar à Touba mu di ne au fur et à mesure campagne bi dem. Mhm. ñoom dañu fekk si euh, Idrissa Seck ak son camp ci benn terrain boo xam ne ñoom dañ fa faible trop terrain boobu mooy lan mooy Idrissa Seck dafa taxaw assumer. Mhm. son appartenance à cette confrérie là. Mhm. muy benn am ñu bëree bëri ñu mere woon ci APR dem fekk ko ngir faj seen mer. am ñoo xam ne ci PDS lañu bokkoon ànd ak Ablaye Wade. Mhm. à partir du moment où Ablaye Wade ne bokkatul ñu ne kon kat ñum kii moo fi des. waa APR tombé ci benn piège. Mhm. moo di ñoom aussi dañu dañu commencé tout de suite ñu bëgg a mêler la confrérie. Mhm. dans la campagne dans la politique xam nga nan lañ def. dañu jël ay waxtaan yu Serigne Mountakha Bachir Mbacké. defe naa sax wax loolu moo gën a garaaw d'ailleurs waxtaanu téléphone. yu mu doon gërëmee le président Macky Sall. ñu mm-hmm. ko di ko teg ci ay rajo ak ay télé. Mm-hmm. muy indi une confusion des gens xëy na dañu fàtte c'est vrai que Touba c'est le bastion du mouridisme par excellence mhm. Mhm. mais les populations yu fa nekk c'est des citoyens mhm. sénégalais d'abord avant ñu nekk leneen donc su fekkee danga leen a bëgg yóbbu ci terrain wu xalif bi gërëm na Macky Sall ak yooyu bëgg leen gëmloo ne xalif bi kon Macky Sall lay jàppale kon dinañ voté loolu ma ne kon yaa ngi jum parce que le xalif waxul ci wàllu élection ak lu ci nit war a comporté woo tout ce qu'il a fait mooy appeler ci jàmm ak salaam pour que ku nekk dem remplir sa mission ni sa devoir citoyen ni nga ko remplir yam ca mhm. beneen bi mooy très souvent j'ai l'impression que ni ñu yore pouvoir bi dañuy juum ci euh, Touba d'abord population yi la ak sëriñ si mais du sëriñ si rek mhm. dañuy j'ai l'impression que dañu yaakaaroon ne bu boo amee ñeen yenn ci sëriñ yi ñu ànd ak yow mhm. les populations forcément dañu ànd ak yow or population yi xëy na ñu ngi vivre ay ay situation yoo xam ne mhm. sëriñ si vivre ko boo gisee euh, benn vidéo bu ma marqué ci campagne dafa mhm. benn mitigu Benno Bokk Yaakaar boo xam ne euh, benn notable ci benn quartier bu tudd Ndindi la ci Ndindi notable ñëw fa ne ñun dinañ voter parce que suñu devoir la mais fii moom def leen <laughs> dara lampe yi fi nekk meenu Ablaye Wade moo koy def mhm. donc ces populations bu ñuy voté mhm. généralement dañuy voté en fonction de mhm. est-ce que kii def na fi lii ak lii ak lii beneen bi mooy beneen juumte bi mooy l'autoroute Ila Touba ils ont pensé que ni autoroute boobu mën na convaincre les électeurs pour ñu voté pour ñoom dinañ ci ñëwaat léegi mu nekk njuumte pourquoi parce que infrastructure boo koy def doo ko def pour am un vote Mm-hmm. donc euh, parce que c'est utile pour le pays c'est utile pour les mm-hmm. population mm-hmm. donc mu bëri ay ay ci approche u seen campagne ba pare beneen bi mooy quand Idrissa Seck est allé à Touba def campagne je pense que def na ñetti fan ci dëkk boobu wala ñaari fan yoo xam ne jógewu ko day dem ñëwaat fala fanaan et tout mu am un discours boo xam ne moom la def à Mbacké et ce discours là a fait tilt mooy quand il a pris la bi mu jëlee parole Mbacké li mu njëkk a wax mooy le projet phare du khalife général des Mourides ci moment boobu mooy l'université de de Touba. Touba mi nga xam ne trent milliards lañ ko évalué. Mhm. mu ne moom li muy ñaan mooy bu nekkee président bu ko ci kenn mën loolu dafay dugg ci noppu électeur. Mhm. beneen bi moo di ne dafa bari ñoo xam ne souvent dañ naan président Macky Sall bi mu ñëwee Touba la nag lan la leen dig ñu ne digoon na def na fa. dafa hôpital bu xaw ma mel na nag ne na mhm. ñu ne hôpital ba léegi ay zinc moo fa nekk donc dicté boobu respect dig boobu respecté wu ko ah, donc tout cela fait que il faut que bu ñuy analyser mhm. le vote ñu bañ ko yemale rek ne parce que murit la wala parce que tijaan la parce que sinon daf ñuy dugal ci erreur bu mag mhm. te man encore une fois dama naan Cheikh Tidiane Gomis Moustapha Diop présenté waaye une élection présidentielle Cheikh Tidiane voteel ko parce que jàpp na ne Moustapha mbokkam la pour man du ngaañ pour man mhm. loolu aayul mhm. li aay kay mooy Cheikh Tidiane bëgg yor nguur gi sur la base de ça sur la base de ñii samay mbokk la ñoo ma voteel ah. ñii duñ samay mbokk samay mbokk voteel ma loolu réew mu réew mu tàkk looloo ko taal uh-huh. et loolu dafa mel ne de plus en plus da ngay dégg ci discours yenn homme politique yi uh-huh. ñuy véhiculer loolu que ni diw diw ay mbokkam ñoo ko voteel diw ay man pour man loolu dara nekku ci un candidat bu fekk baax Fuuta waa Fuuta ko uh-huh. pour man c'est pas très grave un candidat bu fekk baax Ziguinchor waa Ziguinchor voteel ko pour man dara nekku ci un candidat bu fekk baax euh, Thiès waa Thiès voteel ko dara nekku ci mooy la classe politique ba a utiliser loolu ba diviser réew mi te loolu c'est pas bon et dinaa ci ñëwaat en deuxième partie uh-huh. parce que am na waa joo xam ne def na ci benn benn jéye bu am solo uh-huh. soo ñëwee par exemple la le vote à Thiès Thiès dafa demoon ba Idrissa Seck uh-huh. la commune rek la doon gagné mais tey jii score yi mu def à Thiès ci élection yi je crois que bariwul lu mu ko def loolu facteurs yu bëree bëri ñoo ko expliqué yoo xam ne dara waralu ko lul le fait que à Thiès par exemple les gens ont le sentiment que dañu fa defal promotion ñu bëree bëree bëri pour ñu sot sotoo uh-huh. sénégalais dafay dafay bañ kuy sot sotoo uh-huh. donc boo defee promotion ñu bëree bëree bëri ñoom aussi ñu jël ay moyen wu état wu Sénégal xëpp ko ci Thiès googu pour gagner une dañ naan kii dañ ñëw pour sot sotoo ko ñoom aussi ñu wane seen bopp ci loolu uh-huh. donc il faudrait que buñ dee analyser le vote des sénégalais xam naa ne les sociologues xëy na dina ñooñu ci gën a mënte dina ko jàngat mais li may bañ rek moo ñu yemale ko ci wàllu confrérie wala ethnie wala région uh-huh. c'est plus complexe que ça je pense que je dis pas que ne loolu amul je uh-huh. dis pas que totalement exclu mais uh-huh. je pense que y a d'autres raisons d'autres facteurs qui yoo xam ne mën nañ expliquer ni nga xam ne noonu la Sénégalais yi voté maintenant je fais cette analyse là en se basant ci résultat yi nga xam ne moom la ñu génnee donc résultat yi mooy yi am ak yi amul mooy yi nga xam ne il va devoir s'y il va falloir s'y faire parce que effectivement Macky Sall na ko au premier tour te analyse boobu lañ mën a def sur les le vote des ah. différentes parties du Sénégal